Euh, te kon nekk xam na ne mouridisme ñëpp la lëkk euh, la la la boole xaajiwul kenn ndax euh, li nga xam ne moom moo di Serigne Touba Xaadimu Rasuul ki na ma jëm fa yàlla rek la doon woote mais te jii bu ñu gisee ñenn ci njabootam ku ci mel ne Cheikh Salih Mbacke yal na yàlla yokk leeram te taas ci barkeem maam Salih Mbacke nit ñi di ko jooy ba te ronkoñ ferewul nekkoon koo xamante ni la woon université la woon mais koo xamante koom-koom la woon ndax ku xam xel kom jaaga gis bu baax a baax ñaata tonne euh, de de de alimentaire moo fay jugee ci dund euh, ñaata euh, bu dee ci wàllum université la mooy ñaata nit ñoo fa tàggatoo jàng tey ji génn ba nekk ay kàngam yor seeni liggéey bopp macha allah eh, kenn gisu leen ci lu neexul suñu borom ñaata ñaata ñaata ñaata ñoo xamante Serigne Saliou Mbacké tàggat na leen eh, ci giir gu mu fi nekk ndaree àdduna safu ko woon Cheikh Saliou Mbacké nekkoon na ko xam daf ko dëdd woon te xam ne àdduna bi kat eh, mënoo fee amul lenn loo xamante mën nga ko fee def ci lu lu baax lu lay jëriñ ëllëg lépp loo fi def te du mbaax du ay jëf yu rafet du ay jikko yu rafet du diini l'islam bu bu dëgg te Euh, loolu yaakaar na wala sax ci ndigal te bàyyi tere amul lenn loo xam te woote na ko dul lool ma jàppoon tey jii euh, vraiment nañ naan bu ñu may nit ki lim lay ree parce que fu da naan euh, ñi la ku la bëgg a dóor xool xool xamu fu muy jaar day xool fu mu gën a jege mu jaare la fa bu ñu may nit ñi ay porte d'entrée parce que am na yenn comportement yu ñu gis jamono ji ci yoon bi bokkul ci yoon bi te ku nekk xam ne lii nii tey ji bu Serigne Saliou Mbacké ñëwoon tey du ko neex eh, ki fi nekk mun Mountakha neexu ko ndax Serigne Mountakha mooy Serigne Touba Khadim Rasoul fi mu nekk nii fil ardi di alxalifatul am Euh, ci yoonu murit bi mais yàkkaante ji nañu xoolaat comportement yi sant Serigne Saliou nag am na neen nañ ko mën a sante lu nii sant Serigne Saliou bokk na ci nga jëf lu rëy ko comme ci ndongoom ya sant Serigne Saliou bokk na ci ñu woote liggéey bu xel comme nga takku ba dëkk dem ca sant Serigne Saliou bokk na ci màggalu Tuubaa ñëw nga def xéwal yu baax benn yóbbu ca dëkk bu sell sant Serigne Touba bokk na ci nga tabax ay école yu baax ay daara yu baax dugal fi di ñuy jàngaleen alxuraanu karim diine suñu borom tag sant Serigne Saliou bokk na ci li nga xam ne moom moo di rek jàppale nit ñi euh, yaakaar naa loolu la Serigne Saliou daan woote waaye wootewul taxaw di ngisal ak di sol col goo xamante ni vraiment dëppoowul ak ak ak solin wu sell amul vraiment lu lu tegg ni wut la yaakaar na loolu ñi koy def ñi ngi nax seen bopp te loolu bu dee dañ koo jugtee nañ ko bàyyi ndax mën naa nekk loo xam ne ñu bëri mën nañ ca inspiré roy ci moo tax nit buy def nay def loo xam ne ku ko ca loolu kenn dina ko accam na nekk loo xamante lu am solo lay doon kon nañu xoolaat comportement yi parce que lii moom yaakaar naa du luy jëm kër te ñi ko def yaakaar naa bu ñu toogaatee waxtaan ak seen intelligence seen xel dañu xam lañ def yéenewul maanaam sol ay yëre yu naaw ak mel ne ay picc yu kenn xamul sëñ Sall yëre bi mu daan sol sax nga boo ko sot boo ko changé wul ko di ko changé ndax dëddu dara loo xamante ni daf ko daf ko daf ko yóbbu ci parce que àdduna dafa doy waar am na loo xam ne boo ko defee rek mu yóbbu la ci sa naf su bakkan nañu moytuwaat bu baax a baax nañu xoolaat nan la ñuy jaamoo yàlla suñu borom nan la ñuy bëggee Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax te Sëriñ Tuubaa yoon yi mu def yoon wi nga xam ne xaalu na ko kat wax dëgg yàlla dañ koo xalal ngir ñu jëriñu ci Sëriñ Muntaxa boo ko dégg mu wax mbokk taali taalibe lay wax ñoom ñëpp dañoo jaay seen njureel jënd ko taalibe yaakaar naa ne kon ñun buñ nekkee nag ay taalibe lañ wala ñoo dox doxinu taalibe di jéem a maytandiku yenn sol yi ak yenn dox waxin yi sax yenn kàddu yi sax murid sax am na kàddu yoo xam ne war na koo rus yenn yoo xam ne war na koo wax waaye tamit lii day may porte d'identité tey ñaata musicien ngi gis ñu taxaw ci concert